fas yéene ñaanal la nga tàmbaleek fa nga bëgg a yegg jàmbaar. mara wàcc. dëgg la gaynde warul tiit moom du ragal jàmbaar. mara wàcc. moo di buuru àll bee fu la fekk dalay daan loolu la ñëpp wax. fula fayda moo amee fula fayda kenn du la yee. fulla fayda boo amee fulla fayda kenn du la yee fulla fayda boo amee fulla fayda kenn du la yee dolle tabe kom kom kom haa doom yi waye bati kom kom baka yaa dolle tabe kom kom kom haa doom yi waye bati kom kom baka yaa maa ngi seeti dëkk la ñoo di Sénégal Njaay gaynde Je m'appelle euh, Aïda Fall, je suis poste pivot de l'équipe nationale du Sénégal. Je suis en équipe nationale depuis euh, j'ai fait quelques sélections, euh, j'ai jamais eu l'opportunité de faire de Cannes. Je joue en France. J'ai euh, fait euh, bah, plusieurs clubs. <laughs> Ma carrière elle été faite que France. j'ai joué euh, bah, à un niveau, j'ai fait beaucoup de deuxième division. Et là, on va dire, je suis sur la fin de, bah, de ma carrière. Je m'appelle Lalawan, j'ai 30 ans, euh, je viens de France. Euh, j'avais, comment s'appelle J'ai commencé le basket euh, quand j'avais 10 ans. Euh, à la base, j'avais pas prévu de faire ça. C'est ma mère qui m'a inscrit parce qu'elle aussi, elle a joué avec l'équipe du Sénégal ainsi que mon père. Et euh, à partir de là, en fait, euh, mon cursus a commencé. Donc j'ai joué d'abord au Havre pendant 4 ans. Après ces 4 ans-là, j'ai signé ma, mon premier contrat professionnel à Charleville-Mézières. Et après Charleville-Mézières, tout a démarré. Donc euh, j'ai joué en National 1, j'ai joué en Ligue 2. Et euh, cette année, j'étais à l'équipe d'Orthez, dans le sud-ouest. Et euh, nous avons joué la Coupe de France, nous l'avons gagnée, et puis me voilà avec euh, l'équipe nationale pour la deuxième fois. Le message aux Sénégalais, il faut continuer à nous soutenir, être euh, positif, croire en nous. On sait tous que le basket n'est pas forcément aussi un sport facile, car euh, on n'est pas parfait surtout. Il faut avoir du recul et euh, savoir en gros euh, que des fois on peut rater des paniers, comme des fois euh, on peut être en, en, en pleine forme. Mais il faut toujours continuer à nous soutenir et à rester positif. Je m'appelle Bintou Djemé, je suis meneuse de jeu. Voilà, euh, ça fait euh, à peu près une vingtaine d'années que je joue au basket. J'ai commencé à l'âge de 10 ans en France, puisque je suis née en France. Voilà, donc euh, mon parcours a été essentiellement euh, basé en France. Et euh, je joue à Saint-Amand-les-Eaux en France, dans le Nord. J'ai joué pour coach Adidas, Abdou, à Villeneuve d'Ascq, il y a une dizaine d'années, euh, deux ans. Voilà, avec qui j'ai euh, beaucoup, euh, j'ai vraiment apprécié euh, travailler, le côtoyer. D'ailleurs, je suis toujours en contact avec lui. J'ai joué, euh, je suis issu de la formation de l'USVO qui s'appelle Valenciennes à l'époque, qui était le grand Valenciennes euh, champion d'Europe, un grand club, phare d'Europe. donc euh, je suis issu de cette formation-là. J'ai essentiellement joué dans le Nord. Après, j'ai joué un petit peu partout, à Toulouse, Aix-en-Provence, mais essentiellement dans le Nord quand même. Une grande partie, une grande majorité de ma carrière euh, s'est faite dans le Nord de la France. L'année dernière, on Euh, pour moi, ça reste dans, ma tête, quoi. Voilà, c'est vraiment ça. On va dire, euh, on s'est jaugé euh, face aux meilleurs, parce que c'était quand même les 16 meilleures nations européennes qui étaient représentées lors de ce tournoi. Et du coup, pour nous, c'était quand même un, bon défi qu'on a su relever. Et, grâce à ça, on a pris de l'expérience, je pense, pour pouvoir aborder cette, cet afro-basket dans de bonnes conditions. Salam alaikum, man la Saint-Louis. Euh, di jouer euh, poste équipe ñëw équipe nationale préparation di jouer poste un ak deux maa ngi jàng basket Saint-Louis euh, Saint-Louis laa joué après ñëw ville de Dakar à cette année bi ma ñëw joué Duc. peuple bi maa ngi leen di wax ni ñu ñëw supporter nu ñu kilifa diine kilifa aada yi ñaanal nu parce que ñu ngi jëm ci lu am solo muy afro basket bi. te dañu soxla ñëpp lañu soxla kilifa diine yi kilifa aada yi dañ leen soxla dañu soxla supporters yi voilà ñu ñëw ñoom ñëpp suñu yaay ak suñu papa yi ñaanal ñu voilà parce que lii ñu jëm ni euh, yombul euh, lu metti la mais mën na yomb ci kaw bu ñu jàppalee ñoom ñu ñëw si euh, soutenir nu taxaw suñu ginnaaw jàppale nu incha allah ba nu gañe coupe bi allah mu des Sénégal. salaamaaleykum maa ngi tudd Mathilde Aïcha Diop. Euh, man poste arrière lay joué si équipe nationale bi nii euh, ba bopp laa jàngee basket fa laa defee sama lépp après si laa dem France euh, bi ma amee sama BFM si laa dem France di basket foofu centre de formation bi ma amee bac si laa ñëwaat Sénégal joué benn année en senior à bopp encore si laa jëlee Révélation 2016. après si foofu laa jóge dem euh, États-Unis joué fa samay quatre ans université euh, bu nekk Colorado. rêve la mësa doon bi ñu nekkee xale ba léegi di seetaan équipe nationale Sénégal di leen supporter ba siy jooy kon tey nekk fi nii tey yaakaar naa ni fierté bu mag la te c'est un honneur de d'avoir des chances de représenter les couleurs du Sénégal. sama idole si basket sama papa lay doon parce que moom it mu ngi woon si milieu bi te yaakaar naa ni def na. Euh, posé na markam ci basket sénégalais tamit te mu ngi may jàppale ci lu bari donc euh, yaakaar naa moom mooy sama idole ci basket. maa ngi tudd faatu Diagne maa ngi dëkk Thiès maa ngi jànge basket CNEPS excellence mais maa ngi woon site académie bu Thiès tamit euh, coach Idrissa Sissoko moo ma jàngal basket ba keroog may dem États-Unis donc seen encadrement laa jóge après bokkoon naa ci sélection U16 U18 yi mais après dama dem États-Unis bi ma amee bac maa ngi benn université bu ñuy wax Purdue University euh, léegi nag après ci lañ ma convoqué waat convoqué équipe national ren. maa ngi joué poste 5 mooy pivot bi euh, mënuma wax plaisir boobu ma am bi ma bi ma jël bi ma coach bi woowee ndaxte loolu nga laa doon xaar depuis. bi ma doon bi ma commencé basket na te samay référence ñoo fi nekk ci équipe bi samay idole donc plaisir la wala ndam la ci man boo xam ne ni bi ma doonee xale ba léegi depuis ma commencé basket moom laa doon liggéey pour jéem ne un jour dinaa basket ak Astou Traoré loolu plaisir la te ndam la man ci man boo xam ne ni pour ma représenter sama country Malalena Nya, um, Elie, équipe nationale. Um, Temple University, la basket États-Unis. Euh, balaa ma dem sampu GIA la commencé foofu la intégré basket si Nicolas André après doogay dem si euh, Flying Star entraîné ak Ibrahima Ndiaye moom moo jàppale ma dem États-Unis so depuis loolu fa laa nekk depuis sept ans. je pense que du ma mel lépp ni Sandi défendre lépp si États-Unis laa ko jàngee avant ma dem mun nañu wax que ni I was you nii rek mais lépp si lu ma jàng foofu laa ko gën a foofu la gën a évoluer ak genre. anglais bi dugg na bi may soog a ñëw dañ ma doon tooñ ak sama wolof bi dégg naa fa ni yëpp sénégalais yi moom la ñuy amee ak sama olof bi mais dina ñëw de mu ngi ñëw. pourtant wax dañ may tooñ de nee sama wolof bi baaxul mais moo ngi ñëw. nee nañ gambien la sénégalais laa lii bi moo ñëwul rek wolof bi mais dina ñëw même deux semaines balaa coupe d'Afrique bi incha allah. asalaamaaleykum euh, maa ngi tudd Yacine Diop maa ngi joué poste arrière. Um, uh, maa ngi joué université Louisville so sama carrière uh, mën naa ni jala Jeanne d'Arc laa commencé basket depuis uh, minime um, par la suite en 2011 laa am opportunité dem États-Unis pour continuer samay études en même temps jouer basket um, après laa ñëwaat 2012 si équipe U18 yi comme gagné nañ fi Coupe d'Afrique Euh, daaw la rejoindre encore équipe senior yi moo euh, ma rejoindre équipe senior yi so ñu dem si coupe du monde bi on a euh, on a gagné une première fois la Lituanie so mu nekk une première pour l'équipe du Sénégal so um, naaw ñu ngi nii back pour préparer la coupe d'Afrique anglais bi moom States laa ko jàngee bu may dem wax dégg moom dara yeah Um, yee métti woon na kay métti woon na parce que dégg ma woon dara saw sama sama cours yi basket bi tout était en anglais ñi ma nekk les gens autour de moi saw c'était très c'était vraiment très difficile. métti um, woon na trop parce que blessure la mi nga xamante ne c'était une première fois mu dal ma dama doon gis rek yenn yenn nit yi di di di di wax euh, à propos blessure boobu nu muy demee genre affaire yooyu. so moo nekkoon nag lu metti mais instant yi ñu ngi sant yàlla alhamdulilah ba ñu mënee reprendre suñu activité yëpp reprendre basket bi. non jo ay jooy moom def naa ko jooy naa bay bëgg dee parce que tamit de blessure bi nga xamante ne ça prend six à huit mois pour mu tane donc dafa laaj patience et tout xam nga dina di nga douter di nga tu vas des questions ndax di nga mën a ñëwaat à cent pour cent mel comme ni nga meloon ou bien meilleur so but from ñi ma déggee ak médecin yi anytime like ku am les euh, blessures même chose bi à chaque fois suñu ñëwee dañuy ñëwaat like gën a ñuy gën a am doole dañuy gën a meilleur loolu doon na ma doonoon na xamante ne doon na ma rassuré Euh, sénégalais maa leen di wax ñu ñëw ñoom ñëpp ñu ñëw supporter ñu ñëw feesal arena bi xumbal foofu yëngal comme ça nga encouragé ñu aussi ñaanal ñu baax comme ça ñu ñëpp ñu booloo doon benn comme ça ñu mën a gagné Coupe d'Afrique. salaamaaleykum maa ngi tudd Mame Jojo Diouf euh, maa ngi basket maa ngi doon basket Espagne sama carrière avant may génn maa ngi ko doon joué Dakar Université Club euh, nekk naa aussi deux fois championne d'Afrique après ma dem Suisse. foofu laa joué pendant six six à sept années après instant yi maa ngi Espagne séeréer laa dégg moom laa nàmp donc waaw moom laa gën a dégg kay <laughs> wax leen rek ne que seen jàmbaar yi seen gaynde yu jigéen yi jógaat nañu xam nañ ne public bi saa yu Lions yi jógee ñoom ñëpp dañuy nekk ci ginnaawam donc du c'est pas ñu ngi leen di waxaat rek comme euh, ça fait presque 2007 ba léegi Sénégal mosul organiser Afrobasket fii nii donc ñu ngi leen di ñaanaat ñu ñëwaat def comme ni ñu defoon 2007 et que ñu ñaan yàlla ñu bàyyi ba euh, coupe bi de loolu nag ñu ngi koy wax pour pour ñu am ko il faut ñu santé suñu peuple santé ñëpp ci ginnaaw Lions yi comme niñ ko tàmm di defee ñu ngi leen di ñaan di leen wax na ñoo feesal Dakar Arena bi nga xamante ne président mu moo ñu ko jox et que mu nekk bijou bu bees boo xamante ne FIBA mën naa ne am na moo tax mu am confiance jox Sénégal basket bi donc maa ngi leen di wax ñu ñoo feesal ko. salaamaaleykum euh, ma Marie si euh, maa ngi joué France euh, Sibac laa jaar après dem tuuti GA après balaa maa dem France en Euh, France joué naa ay club sama dernier club Villeneuve la Lyon Nantes Arras Arras laa démarré boo jógee Sénégal Arras laa dem ak Montpellier yooyu club laa def de suma jumulee et euh, voilà mais euh, j'ai fait un peu le tour j'ai été deux fois championne d'Afrique en 2009 et en 2015 euh, finaliste oui 2011 2017 et euh, en 2013 on a eu médaille bronze en 2013 au Mozambique. Oui, mais ça n'est pas toujours parce qu'il fallait être sur le podium et euh, fallait chercher cette place-là. Donc euh, on ne devait pas euh, déshonorer en tout cas ce que nos grandes li nous sommes au Sénégal et que nous tamit moo taxoon quoi mais du dara. <laughs> La Coupe d'Afrique gagnée en 2015. Parce que les débuts étaient très durs et les gens n'y croyaient plus. on a, on a joué avec le cœur après, on a joué en équipe, on a, on s'est dit les choses, on a entendu tout, mais euh, donc c'était une, une belle confiance en tout cas pour nous parce que c'était très dur en tout cas d'être dedans et d'entendre de d'entendre de, les critiques. Après c'est des critiques euh, après négatives, il y, a, il y a aussi un qui était positif, mais euh, c'est des choses euh, euh, qui te permettent en fait surtout de ça te galvanise en fait. Donc, euh, et ça nous avait galvanisé et tout. Donc, euh, on avait joué en équipe et on avait gagné, donc c'était une belle récompense. Sincèrement, les jeunes, euh, elles sont bien, elles sont très bien et ça fait du bien aussi. Parce qu'on euh, on ne peut pas, entre nous, on se connaît. Euh, on, sincèrement, les équipes, que ce soit Angola, Nigeria, toutes les équipes là, euh, on sait c'est toi les mêmes choses qui se rencontrent. Donc forcément, amener de nouveaux talents, c'est toujours bénéfique pour l'équipe, c'est toujours bénéfique pour nous aussi parce qu'on euh, ne va pas tout le temps se reposer sur nous. Et c'est des jeunes qui sont talentueuses, vraiment, et euh, qui ont le niveau et qui montrent de très belles choses à chaque jour à l'entraînement. Et euh, sincèrement, il n'y a que de la satisfaction. Donc euh, après maintenant, euh, elles vont le montrer, Inch'Allah, vous, vous, verrez, vous ne serez pas déçus. En, en tout cas, quand la, quand la Coupe d'Afrique va démarrer. salaamaaleykum man la Astou Traoré capitaine des Lions du basket. waaw en fait moom bopp laa jàngee basket fa laa defee Benjamin ba nekk fa senior deuxième année après ma dem Duc Dakar Université Club j'ai joué là-bas quatre ans et après si la dem euh, France joué na fa aussi et euh, ba ma jugee France def naa huit ans Espagne et tout sama dernier club maa ngi koy joué Encino. après Sénégal waaw def naa France def naa Espagne def na Turquie joué naa Galatasaray et euh, joué naa Équador aussi. cette année ce sera la deuxième fois incha allah waaw en 2015 waaw si laa nekkee champion d'Afrique. ça fait plaisir nga bokk xale yoo nga xamante ne dañ la doon en télé di rêver jouer ak yow ñu ñëw aussi. Euh, defuñu concurrence ak yow ñu wan la ko carrément du coup ñu ñun suñu devoir mooy ñu jàppale leen di leen rectifier si bi terrain bi di leen wan yoon bi naka la fu ñu toll di waxtaan ak ñoom di leen wax ne Coupe d'Afrique euh, du yomb ba pare du du ragal moo koy gagné foog nga am fit yaru nañu trop souvent dama leen koy wax ma ne leen yaru ngeen trop mais Coupe d'Afrique il faut nga pànk mun koo gagné du coup ñun suñu rôle si équipe bi mooy loolu di wax ak ñoom euh, comme ça ñuy ñuy xam parce que xale yu am talent la ñu ñu a basket la vraiment ça fait plaisir ngay ngay ngay nga bokkatee partager xale yoo nga xam te ne say fans la ñu doon loo yàgg bëgg et tout. en tant que capitaine li ma leen di mooy ñu ñëw jàppale ñu soutenir ñu euh, parce que man euh, nit yu bëri dañ may interpeller souvent di ma ne asu Dakar Arena dafa sori dañ koy seetaanee si télé bi du li ma leen di ñaax mooy ñoom ñëpp ñu ñëw soutenir ñu parce que match am na fooy toll euh, boo gesoo di sa public sa xol day sedd ñoom ñoo lay poussé nga gën a dem en avance et du coup dama leen di ñoom ñëpp ñu ñëw jàpp si comme ça ñu mun a gagné afro basket bi. salaamaaleykum man la Oumou Khayri Sarr dit Kumba Sarr comme les <laughs> les amis toche pour yow <laughs> maa ngi juddoo médina yaroo Medina basketté ay fonctionnaire e jël révélation après dem Autriche voilà terminé sama. Euh, presque sama carrière yëpp Espagne laa ko laa ko defee bien sûr 4 5 3 2 voilà. <laughs> polyvalente quoi ñaata kan nga ñaata kan nga gagné. Eh, benn laa gagné def naa trois kan mais benn laa gagné donc j'espère bien bi nii donné à fond pour mën a pour mën ko gañee sama sama dëkk loolu mooy sama rêve. message bi ngay lancé sénégalais yi. waa li may lancé sénégalais yi mooy ñu. comme d'habitude rek ñëw massivement ñëw jàppale ñu xam ne dañoo dañ ko soxla parce que Coupe d'Afrique euh, organisé wuñ ko feneen suñ dëkk lañ ko organisé donc on en a besoin ñu ñëw massivement je crois que bu demee ba métti bu ñu tourné ba gis leen rek je crois bopp yi mën na jugaat donc soxla nañ leen nañ ñëw jàpp nañu si Coupe d'Afrique bi ndax ñu mën a jël ndam li